ata Diaz nuyu naa la. Baye Fall maa lay fay. ndam nag neex na de. waaw sant yàlla rek yàlla koy joxe. da ngay ñëw sañse jàpp neex doo sa servet mooy loolu. waaw mais non sañse suñu yëf la nag wax dëgg yàlla. Ah. waaw sant moom bu doon kër ma am nañ fa néeg ak saal. wax dëgg yàlla ah non nga dool sàll be. waaw ba waaw ba tey yooyu mën naa ne <laughs> sañse moom xam nga yàgg nañ koo def quoi mais sant yàlla. mais boobaag léegi seen teeguñu félicitation laa lay wax. waaw merci merci merci merci. mais boobaag léegi euh, nga daan zos. ci noo xam te ne bëggee ko woon ñan ñoo nekk ci sa kanam fi mu toll. maa ngi dégg nag ñu bare ñu wax. waaw comme ko far di waxee làmb moo ne sama kanam rek wax dëgg yàlla man yaakaaru làmb laa te wax dëgg yàlla gëm naa ko bëgg naa ko kon li moom mooy gars yi jox ma gars rek ma bëri am benn problème man maa ngi pour làmb daal. mais da nga da nga xaw a da xaw a yàgg ci làmb su mën naa ne sax da nga xaw a taada ndax ñi nga àndaloon ñu ci bari dégg na leen fenn fii combat yi doon yéex les combats yi di gaaw ngay am victoire ñan ñan nga war a fi mu toll nii dëgg-dëgg waa ñi ma war a bëreel mooy gars yi ñu ngi ci làmb rek du man moom xam nga damaa ne ci ay loxo fan yi xam nga ma fi di naan dañ ma jox nañ ma jox diw. sa digganteeg Diène Kaïré loo ñu non déggoo li ma la non Diène Kaïré sama rakk la maa moom ñoo bokk benn papa waaw Diène Kaïré moom. yaa Diène du ngeen bëre. non maa Diène du ñu bëre. lool loolu làmb ju neex la bu leen ko ju neex la mais am na si loo xamante ni tamit xam nga moo jiitu làmb daal te làmb day jeex ba ko fi kon du ko jar daal ndax xam nga Père Kaïré sama papa la sama xarit ñu yàgg a cëkk teraanga boobu Diène newagul mbër xam nga ñuy muy ñëw suñu écurie di jàppale la de guerre ñu seq ay teraanga yu bëri du ma am combat te yëgu ko woo ma conseiller ma xam nga ñuy dox ñuy defalante yu bëri daal kon gisuma ne làmb di war na mën a yàqu lool. diggante Papa loo ci wax. waaw ma maa ngi fi pour làmb rek maa ngi fi pour làmb képp ku ma yàlla booleel mu raisonnable. bëgg nga Papa Sow. non bañ ma bàyyiwuma kenn bàyyiwuma kenn Papa Sow champion la maa ngi koy masawu ci xam nga ci combat bi passé mu jógee waaw du ko ñaan suñu borom may ko wér mais ma bàyyiwuma fi kenn maa ngi pour mbër yëpp rek maa ngi daal kontaan naa ah, taw bi Papa Boy Djiné. Papa ci maa ngi rek. yaa ngi am jàmm. waaw sant naa bu baax. nga ñëw andi Mathia naka ngeen andee Mathia ñu xam sa diggante ak moom. waaw suma xarit la moom. sama xarit la dañoo yàgg te ni may def laa koy def suma ma amee combat day bàyyi léppam xam nga ñëw taxaw maa ngi koy daal ci barki yonent bi yàlla suturaal ko may ko ndam. foo toll. waaw ñun ñu ngi toog suñu ruuk rek di xaar ay xale lañ comme li ma la waxoon rek ñun sport lañ bëgg ñu ngi si daal ba keroog ñuy gis leneen. kontaan naa jaajëf